téléspectateur yu 7TV ñu ngi leen nuyu nuyu bu sell asalaamu rahma wa barakaatu nuyu bislaam asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw ba ñu sante yàlla julli sinant bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur tey ñaanal réew mi jàmm kilifa diine yeeg kilifa aday ñu leen di ñaanal jàmm ñu nekk sa hôpital ba suñu borom fëgg seen bopp ñu nekk sa prison ba suñu borom génne leen ba ñu def fay delloo ñu fas yéene àndaat ak yéen seen spécial tabaski eh, li ma ko waxee woon rek eh, gars yi di ko gis ci statut yi nee woon naa leen tey moom dañuy joxe ndéwénal gu duuna duuna duun incha allah rabbi ndax këru kër diine yi ñoo fi daje muy waa kër Baye Niass waa kër Maam Borom Touba waa kër Seydi Euh, bàyyiwuñu kenn tey daal xam naa ne fii incha allah rabbi dina neex lool ba tax na maa ngi leen wax euh, déwéniti euh, yéen ñi nga xam yéen a safoo 7TV waaye yéen samay soppe yéen samay xarit ak samay am di jàmm ñu ngi leen wax déwéniti bu baax a baax a baax di leen wax ngeen baal ñu ak mën nañoo tooñ dañuy dañuy dañuy tooñ rek xamante nañu ci whatsapp bi moo tax ak ak facebook beeg yooyu moo tax maa ngi leen di wax baal leen ma ak baal naa leen ak ñu teew ko ay ati at at ci bijaahi nabil Moustapha tey nag ki war a tijji bis bi ki war a tijji jotaay bi day xale boo xam ne révélation la Euh, su ma nee révélation dëkk Thiès euh, nekk koo xam ni ku mën li muy def la macha allah tubarkàlla euh, su demee si tijaan yi nga xam ne mën na ko su demee si murid yi nga xam ne mën na ko fu mu laar rek dangay xam ni kii mën na ko. ñu jëlee ko Thiès indi ko tey Ndakaaru mu fas yéenee jàkkaarloo ko waa àddina ba tax na suñu aatu dama lay bàyyi nga nuyu téléspectateur 7TV yi. di ko ñaanal Serigne Mame Mor di xalifa Cheikh Massamba mu yàgg fi loolu tëye di ko ñaanal sama Serigne Serigne Sam Mbacke la Zamba mu yàgg fi loolu Mbacke Baye Moussa di ko ñaanal waa Thiès dañ jóge ñëpp suñu ñëwee Serigne Saliou ci day yóbbaale kilifa yi fi nekk ñëpp di leen siyaare di leen jox seen Euh, jërëjëf aatul lazabana xam naa incha allah rabi di ngeen dégg tur woowu noonu mu décorti décortiqué ñu ko waaye laataa loolu damay bàyyi euh, bu bégal soppe yi ndax nee naa leen spécial ndéwénal la ñu la ñu woote aatu kon bismillah auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا ربنا إن الورى تدره لأوليائك مهن يسور ay munala khariqi zilurufi bima yafuqu zanamil makhrufi لنازم الغروف خاوى لدربا يا من كفى وزل خرور والنبا للازم الحروف خاوى لدربا يا من كفى وسر خرور ونبا ولي يا رحمن يا رحيم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديع موسى سلام مسلما ألا مزاسر لا نجاك عبدك الخديع موسى سلام مسلما ألا مزاسر لا مصطفى لولا رنيو àdduna am rawatina Thiès dëkk eh, sama soxna Xarida ñoom Mariama Diallo suñu dëkkandoo yooyu nga xam ni ñu ngi sa Thiès sampaate ñu ngi ñuy suivre ak ñu fi ñuy waxee nii àdduna daal xam naa ne ñu ngi lay suivre bu baax a baax lan moo waral aatu la zaman lan moo waral aatu la zaman laazan bagi wala aatu bi laazan ba laazan bagi mm. li ko waral nag mooy ñëpp xam nañu laazan ba nag fu mu jóge mooy Cheikh Massamba Mbacke mm. laazan ba ji rek ci Serigne Touba moom léppam Serigne Touba moo ko ko defal. moo ko jàngal alxuraan moo ko yar. waaye nag ba jàng ba liggéey jotee. mu yebal ko mu dem liggéey liggéey bi mooy lan fépp foo xam ne Serigne bi waroon na fa di dem. ba mënatu ko. mu yebal fa Cheikh Massamba. bam naan ko Massamba Mbacke sama bàcc ni sumi naa ko ci yow. laazan looloo ko waral. maam laazan Mbacke mooy nit ku amul bàkkaar. suñ tubaa moo ko xoon Cheikh Massa man nag ma bokk foofu sama sëriñ tudd sëriñ Sam Mbàkke laa sant dégg ñu naan diw Kara wala diw Afia Papa Njaay Kara wala diw mhm. léegi nag aatu laa sant ba gi nag maanaam sama tur la mhm. maanaam jëluma beneen turu jàmbur utiliser ko mhm. laa sant gi fa ma bokk laa jël utiliser ko comme ni ko suñuy mbokk di ko defee loolu moo waral ñu ñëw si waay yi nga dëkk Thiès. Euh, nekk révélation ndax xam nañ la bu baax ndax mun ngi mënee nga si ton yëpp aatu lan lay xaar si si si génne album wala mu génne single. aatu lan lay xaar pour liggéey album ñu ci mhm. nag. ñu ngi ci ndax wallaay yàlla seede nañu bu yàggul dara rek ngi ci. Mhm. te xam naa léegi rek incha allahu rabbi. Mhm. soppee nañ ko xaar sopp liggéey loo xam ne bëgg nañ cee ànd ak sopp yëpp ndax aatu nag. du àttu boo xam ni benn kër la rek nag wax dëgg yàlla. du aatu benn kër du loolu xam nañ si dara moo tax euh, damay bëgg nga ñamal say téléspectateurs yi ndax nee naa leen spécial ndéwénal la ñuy joxe tey bëgguñu ñu dee kàllaama mais damay bëgg ñoom ñii di leen bëggal fi ngeen toog si seen salle euh, soxna Aïcha sama dëkkandoo ba nga xam ni ma nga toog si téléem di ñu seetaan moo soxna Mariama Diallo ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax euh, Khadija sa dëkkandoo yi ñu ngi may message léegi di ma wax ni <laughs> ñu ngi ñuy suivre fii si 7TV jëwriñ Basirou Ka suñu waay bopp ji moom it ñu ngi koy siyaare di ko wax ni déwénati wax dëgg yàlla Euh, gis nañ teraanga yu baax yi nga def si réew mi surtout si tabaski bi nga jël gétt euh, jënd ko euh, di ko jox néewi doole yi jëriñ Bassirou ko universel suñu waay bopp ji siyaara nañ la bu baax jox la sa wàcc waaye di la wax déwén déwénaltu bu baax a baax a baax xam naa ne nag mënut a ñàkk suñu kanam dinañ fa jaar <laughs> nga jox ñu suñu déwénal sa suñ Bassirou aca aatu duggal si këru diina yi benn par benn damaa bëgg nga ñëw si tiijaan <laughs> Moustapha ah waaw nañ ko defee noonu ndax nag maa ngi ko doon wax léegi mhm. xam nga aatu moom du aatu wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ sëñ Tuubaa laa yaakaar àdduna ak alaaxira mhm. waaye nag aatu wax dëgg fi yàlla ñëpp koy bëggee mhm. loolu moom bëgg naa ñëpp xam ko nag te bàyyi ci xel ay ca kon waaw kër diine yi damay dégg naan sëñ Babacar duy ma wiiru waay duy ma kaarange bu ziyaar bi ñëwee ci Seydi Mbay laay lànge fa laay lànge fa laay lànge bu ziyaar jotee ci Seydi Mbay laay lànge sëñ Babacar xam nga ni man yow laa faral bu doon élection yow laay voteel leer na maa ngi lay jëneer sama xol bi yaa ci ne yow bëgg la jaamu yàlla laa laay lay la lii de wóor na wala wala baa ngi nii daanati nga kon leeram ga julli na te julli na te julli na musawa leer ya julli na waaw leer ya julli na sunu yonnen ba nekk ay sa la faatoomam sunu xalifa ba mbay néegu yaa asatu na faato fala faato dundal nga diine ji daana ting ku si di di sa nga dénku koy cummi kaay lu diragal ak tiit may yow ak tiit sa baya lay xeel sa baya dundal nga diine ji daana tinga ay ci liin ñu ñaani paas ndax gaal gi téeri na pasukaal gi mu di laam ana yee ana tiijaan yee ana tiijaan yi dundal nga diini ji daana tinga mam bay ges kay fëtël xaaru kayatul kël anbiyaa oo oh, sallallahu alayhi wa sallam wóolu naa كيف تلقى رقيتك الأنبياء أو شيخ تجان شيخ تجان شيخ تجان tijaan ma way laa indi nag wala ma jéggal <laughs> la ko aatu laa laa yaa ngi koy déclaré de waaw ñoom xam nga maa xam nga album bi mhm. maa ngi koy liggéey mhm. dama cee dama leen cee woyal son boo xam ni faaw mu ànd ak bagage yi. te loolu xam naa ne su génnee incha allah rabbi dina leen neex. surprise nga surprise laa bëgg a defal. ndax damay rek ñoon aatu ma newul ci laay yi nangam nangam. Mhm. léegi nag si son bi xam ne nag aatu moom tubaarikàlla. xam nga may sunu borom ndaanaan daa yombul ndaanaan mooy ngay bett indi ko teg ko si kaw si seen bi. Euh, muy waye si moom kese. te xam naa ni yow ndaanaan nga man loolu leer na ma ndax fekk naa la Cees si baas bu nekk. nga toj baas yi ba tax na baat bi yàlla na gën a wér eh, yàlla na baat bi gën a wér li nga mën def nga ko li nga mën eh, xam nga ko yoon wii tamit bari nay xam-xam ñëpp xam nañ ko waaye nag eh, yaay moytu surtout nag nga doon ndaw mm-hmm. yaay yaay moytu rek mm-hmm, nooy nooy nooy jànkanteeg gars yi si kaw seen bi waaw ñoom de xanaa wax dëgg fi yàlla xam nga mu aatu nag wax dëgg yàlla yéen yee gudd rek waaye xale bu ndaw la mm-hmm. waaye nag mën naa ni doo ci dégg kenn mun la aatu am nag man xaar ma yàlla du am ndax ku ci nekk cër ba nga am ci man jox naa la ko te la nga moom ci man dinaa la ko jox suñ dajee su ma la mënee aw dama lay aw wax dëgg fi yàlla waaye nag cër ba ma la jox danga koy xam nga delloo ma ko soo ma ko delloo rek wax dëgg fi yàlla moom dinañ am jàmm te it foo ma woo dinaa la wuyu waaye su ma la joxee cër nag te xamoo li ma la jox dama koy téye mm-hmm. maa ngi nuyu nag sama mag sama xarit Papa Ndiaye Kara baax waaw ku ma jàppal nga ko mm-hmm. te sëñ Tuubaa rek tax séentul sama jëmm ni dara mm-hmm. maa ngi koy nuyu baax a baax a baax aatu foo doon ne waay ndax aatu baat bi macha allah mm-hmm. waaye tamit xam-xam bi ni ngay wayee te xam naa ni si kanam du di ñu ko wax euh, ni nga di nga di nga wax fi way lu neex neex ndax na yoo xam ne dégguma ko ba <laughs> te wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne ñu si ginnaaw ndax nee naa leen spécial ndéwénal lañ leen jox këru diina yëpp dinañ fi yéeg euh, ñoom Cheikh Boiro ñu ngi si suuf ñoom euh, Talla Zikrula ñoom sëñ Gora Al Amin waaye nag ki ma bëgg mu tëj nag mooy Mansour Gaye xaaji Mansour Gaye rakku tafsir Abdourahmane di suñu wóolëre di suñu xarit euh, ñoom daal ñu ngi leen di xaare baax baax baax xam naan daal tey fii dina neex suñu waa kër ya nekk sa Thiès euh, nga xam ne mooy sa maam ma koy jiital maam nga sa jaay ñu ngi koy xaare bu baax sama nijaay Maguette Ndiaye nga xam ni tey wax dëgg yàlla su fecc liir neexee day jaa jàpp sa mbagg ja te moom daa liggéey sur man lu bëree bëree bëree bëri Maguette Ndiaye ma koy xaare bu baax a moom sama nijaay la sama xarit la aatu li ma la wax rek euh, kan moo la kan moo kan nga moo nekk sa ginnaaw aatu ko aatu na ko wax dëgg ndax xam naa ni ñaari référence la am. Mm-hmm. ñoo xam ne maa ngi leen di xool jël sàmba bi teg ko ci ñoom. muy sam papa El Hadj Mor Samba Diop. Mm-hmm. ak sama baay Ousseynou Ndiaye. Mm-hmm. Ousseynou amu fayam. ndax li nekk ci man ba tey aatu ku ne di ko gis di ko bëgg. wala di ko sopp te yàlla rek tax moom la. ndax ba ma doonee liir bu tooy xepp. la sama yaay dem ci ay jàng. Ousseynou di jàng ba mu daan joxe la ñu doon yëpp. am xamatul lu mu war a joxe mu yëkkati ma man bi may doon liir joxe ma addi sëñ Tuubaa ndeysaan sama waajur bu jigéen ndeysaan Ousseynou nag wax dëgg fi yàlla booba hmm. li ko sama yaay jox xam na ko hmm. ndax addi sëñ Tuubaa dooy caaxaan déedéet mu ne ko ah mu ko waaw hmm. mu jël ma yar ma yóbbu ma jàngal ma alxuraan ba mu wàcc dugal ma école ba ma jàng école ba sax xam na xaw naa ci kii waaye ma nga noonu daal loolu yàlla nam bi ma jógee ci école ba teewul mu téye ma ci kër daf maa yóbbu ne ma demal nga jàngi métier. Mm-hmm. ne ma li ma bëgg ci yow mooy soo jàngi xasaayit ba ñëw. Mm-hmm. nga xëy dem sa bureau. loolu la waraloo mu dugal ma école. man ko ah mun ma waaw. waaye nag boobaa li yàlla dogal lii la yàlla na mu ci man liggéeyal sëñ Tuubaa jàng xasaayit yi maa ngi koy nuyu nag baax a baax a baax. te koy ñaanal suñu borom guddal fanam wéral ko ba yéen nga xam ne moom laa am ci moom borom defal ma ko te it ku may nag ma ñaanal loolu. sama baay Ousseynou Ndiaye mu yàgg fi loolu teewel kon way yi mën nañ ñu doon woo ko fenn way yi moom wax dëgg fi yàlla doon ma ko fenn mayu suñu borom la lu ma yàlla defal la rek am na lu ma bëgg a dégg de muy lan yàllaahu yaa rahmaanu yaa rahiim ay ca doxalal <laughs> yalla ya baru ya karimu ya azimu ya baru ya azimu ya baru ya karimu ya azimu حمدا لمنزلي دانا وضاهيا ومنزل صفاي وضواهي حمدا لمنزلي دانا وضاهيا ومنزل صفاي وضواهي براس من بارسني براس من يبارس الملتقي من بارس زمان

iblisa isna diitu biyaa wali ayasa minni laaw hinda jeen wali iblisa isna diitu biyaa wali nafaali xayri laaw xabulu findari bi ahli badril usoodi kaddari nafaali xayri laaw fi ndakaaru kulla azani jërëxul makaaru allamani rahmaanu fi safina bi annani xadiimu sil madina hindalaayi jalaala hindalaayi jalaala hindalaayi jalaala ndeysaan hindalaayi jalaala jalaala jalaala hindalaayi jalaala hindalaayi jalaala عند الله جل لا عند الله جل لا قلبي لو فيتا بالجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار يلوم جسمي دابا في الجلوس بلا من ولا أمل والنفس قرار يلوم وفي خبر بإذن ربي والمقبوس مبرار وابني دار بالمدار اسم بلام أن أخان تمام li duri jaraaru xam nga lii tamit mm-hmm. ku ni nag wax dëgg fi yàlla mën nga koo def ci nit ki ko def si yow de ponkal dëgg la ponkal dëgg la loolu moom xam naa barki sëñ Tuubaa mm-hmm. moo tax tey li ma defal yombul de déedéet barki sëñ mën naa ne jànkat yi maa ci gën doon xale nag waaye nag sant naa yàlla ba nag samay moroomu jànkat fu ñu leen tuddee nañ ma tudd mm-hmm. tey nag lu ñu taxaw def ko bu soob yàlla dinaa taxaw def ko mm-hmm. loolu nag yàlla may yàlla la mm-hmm. waaye daa fa ko jaarale muy suñu baay Ousseynou aw ma fayam mm-hmm. barki Seexul Xadiim kooku lu ma mën a am sama àdduna kookoo moo ko gënal maa koy sant baax Ndiaye jaat yàlla na fi yàgg loolu tëfee barki suñu suñu suñu waay la suñu xarit la dëkk foofu sa si deseno uh-huh. uh, li nga def si kii dey wax dëgg yàlla uh, doy na seede ndax uh, magub jànkat nga ku mën li ngay def nga ñun xam nañ si dara ndax euh, fekk nañ la ay jotaay yu bu ne mooy jotaay kër sëñ Xaadim loo ngay del euh, jotaay murit bu nekk fekk nañ la fa nga ngay jàng xasida waaye li nga def si kii ah mën naa ne de su la neexee mën ngaa yow toog bàyyi ko moom mu doxal ndax wax dëgg yàlla euh, mën na li muy def tubaarkàlla li may wax rek mooy sa digganteeg sëñ Ousseynou. sama digganteeg sëñ Ousseynou. Mm-hmm. maanaam. ci programme yi ngeen di ànd. ci programme yi waaw moom daa dem ndeysaan <laughs> ba daf may ñeewantal ndax xam na ni su ma soxlaa ku soxla da ngay su yàlla dogalee ma war a dem programme woo ma programme bu mënti doon nag dama koy bàyyi dem ci moom ba mu pare ci man ma doog a dem fa ma jëm barki Serigne Saliou tey daa dem ba ma am ci ma ñeewante goo xam ne su ma amee programme sax daf may woo dama soo demul fenn ñëwal ñu dem mhm. su da dangaa war a génn nag ñaanal naa la mhm. man ko bu soobee yàlla noo ko bëri noonu lañ koy defee soo ma soxlaa nag bàyyil man mhm. foo jëm ñaanal naa demal ñëw mhm. mu doon nag koo xam ne nag dama koy rëcc ci lu bari mhm. mën naa toog nii waxam bariwul déedéet benn wax la lay wax te su la waxee loolu pare na soo ko defee baax na soo ko deful baax na loolu moo tax moo tax man ni wax ji wax ji lu ñu bari bari doo ma dégg ci dara su may wax nag lenn laay wax su ma paree pare naa ci loolu ci moom laa ko jëlee mu def ci man nag maanaam ak maanaam bañ a rëy. Mhm. moo ko def ci man ndax mën naa ne bi may doon xale daf ma doon tëj ci néeg di ma jàngloo mu xëddimaatul am daa ma koy tari. Mhm. dee toog ci biir mbooloo ñëpp ñëpp ñëpp ne fa mu ma téléphone na ma kaay tari. Mhm. moo du ma dem ci ay bay patiné wala bay tiit. loolu moo ko def ci man. ndax maa nit ñëpp toog nga ne ma kaay tari ma ñoo sëkku. ñëpp di ma xool moo ko def ci looy tàggatoo. Ah, ok li tàggatoo nag. maa ngi nuy waale nag wax dëgg fi yàlla waa kër Cheikh Massamba yëpp di nuyu baax sama yaay ji ma bàyyi ca kër ga muy suñu yaay soxna rek maa ngi koy ñaanal baax di nag wax dëgg fi yàlla yaay joo xam ne dama koy tiitaroo di suñu waa kër ñëpp li may tëjee nag xam naa ni sama baay akasa sàmm laa koy may euh, suñu akasa suñu baay ju baax jooju euh, bu kenn buuse euh, Cheikh Boiro préparé aatu aatu aatu day mos rek Cheikh Boiro ñëw yéeg ñu demal leen si bàyyi ñes incha allah rabbi ayca إن الذين إلى سرسار قد خسدوا زيارة فرخوا فرخوا دار يمسارا حمدي والشكر لمن كل بيسارا لخوري دندون سخت عند سرسارا لو سنائي وردواني بلاسخة مسخاد لي من بني دايما أنصارا لله كل لدى أبار ما درمتان من أرسلناه في عجم من سارا إن الذين إلى سرزار خد خسدا إن الذين إلى سرزار خد خسدا ziyaara ji li faaraxoo faaraxoo waa daare neew saara sëriñ Saaliw bëggul woon ñi jooy te doonte daan na jooy ngir yërmande gi mu amoon ci doomu aadama yi kenn du sëriñ Saaliw benn bés lañu xëy ñu tàgge ñu sunu maam Serigne Saliou Sénégal ak lii ku wër maanaam bitim réew jooy nañu Serigne Saliou ñun ñëpp àndandoo di jooy rungo ñëpp tuurandoo ngir jëmi Serigne Saliou te Serigne Saliou bëggul woon ñuy jooy te donte moom daan na jooy ngir yërmande gi mu amoon ci doomu aadama kenn du sëriñ saaliw sangum si yëpp ca jun maam bambi jaam baaliw sëriñ saaliw ndigal cuun Cheikh bi ca ma tele reer ma ñuy jooy te noppeeguñu maam bambi jaam kooku moo xam dëgg dëgg sëriñ saaliw bàyyi sëriñ saaliw ndigal cuun sa sangu boobee mu ñu tere yarwaani xaaraani saaliwoo ay sëriñ saaliw mbakke dem na maame lii dameetin naa su ko bëggee muñ ah. bëggee muñ day loo yàlla Moustapha xam laay kii nu mu mel ah. amul feneen ah, fu ñu koy jëleeti ku mel ni Serigne Saliou Mbacké fu ñu koy jëleeti ku bëggee ndonga ni moom fu ñu koy jëleeti ku bëgg xasaayi ni moom fu ñu koy jëlee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 ñibbil si kan mbay gërëm nga doon ñaan am nga mu du yaay jee ñibbil si kan mbay gërëm nga doon ñaan am nga mam aada kaseema boo aada koore mu teexe mam aada simma boo da góore mu teexe sëriñ Seex baayu góor sa bàyyi faal njëgo dootul ndam moom sëriñ Seex Faal baayu góor sa bàyyi faal njëgo dootul ndam moom am di Mbàkke baayu tuuti baara yewin baayu jéemu fanaan see jinaana jinaana Cheikh Jëmmu dem na jinaana jinaana jinaana Samba Faal dem na jinaana jinaana jinaana Cheikh Béthio Thioune dem na jinaana قلت فينا وخوينا وكن لنا وخب لنا حسن الختام ربنا وتب بنا وقوينا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وسليا على النبي وسلم waqdi bi aajatakul muslimin barki sax ma sax jërëjëf Baye Atou fi nga ñu dikkee neex na lool wax dëgg yàlla xam naa ni bugguñu woon sax mu jeex waaye ñi nekk si suuf ñoo bari te bëgg naa kenn ku si nekk këru diine bu nekk rek eh, yëg boppam si spécial ndéwénal bi nee naa leen 7TV dong lay amee ñu dajale këru diine yëpp fas yéene leen a jox ndéwénal gu doya doya doya doy bu kenn buuse eh, bu waaroo ñëw ñu dem si waa kër Mame Baye ay ca pen la dem